aada ji moom na soppi ko day soppi waaw nañ ko daal defee jóg ci kaar yëpp jóg jëm si waa loolu moom waxtu yi mayewu ko ndax loolu sax mooy attel islam loolu waxtu yi mayewu ko kon kenn ku ne fa nga nekk na nga ko na nga teewlu dellu ci yàlla sa kem kàttan loo mën a dund guddi nga dugg ci bi jàng alxuraan jàng ko ñaan lere waaw loolu ji liggéey ko sax moom fàtte ñaanal a yàlla doole ko leer daal ko ngërëm la léegi itam liggéeyal ko liggéeyal ko. pour Cheikh Mamadou kon noonu rek la waaw bu ci dëkk bi dañu nu gën a néew moo ci gën léegi ñiy togg naan ñu bari bari ko mën ñu ko séddale si dëkk taal bi kon loolu muy loolu la teewlu dellu si loolu tuub jàngal faan jàng sa sa ñaan sa kam loolu kenn ku ne mën na ko defam togg kenn ku nekk ku nekk ku toog. waaye ndaje yi moom. li ngeen ba li ngeen si mën a baax. dëgg la waaw man man daa ma doon. dëgg la waaw dëgg la waaw dëgg la waaw loolu ngeen am ngeen xam na waaw. dëgg la bu baax waaw waaw. waaw loolu nag na nga koy wax bu leer. Mm-hmm. mën naa ko wax ak dëpp dëkk ko. waaye bu jaar ci suñu euh, amoo. Mm-hmm. mu ma mm-hmm. maa ko digal. loolu rek mën naa loolu. digal rek loolu digal waaw ndigal rek lay déglu. ndigal rek sa ndigal rek. Cheikh Mouhamadul Mountakha jox ndigal